xaaj bu njëkk bi ci ñaari xaaj yi sool waññiku na ci yeesu tey dinañu waxtaan ci benn ndawu yéesu bu ñuy wax sool mooy ki yawut yi dénkoon seeni yére bi ñuy rey Étienne gannaaw gi muy dem këroo kër ngir jàpp taalibe yeesu yi ku mu ci jàpp tëj ko kaso gannaaw loolu sol ne dafay dem ci dëkku damas ngir jàppi ñi fa bokk ci yoonu yéesu ku mu ci jàpp dina ko yeew indi ko yerusalem bi muy dem damas jekki-jekki ak leer tàkke asamaan dal ci kawam mu daanu ci suuf mu dégg baat bu ko ne sol sol lu sax nga di ma fitnaal mu wuy ne yaay kan borom bi borom bi ne ko maay yéesu mi ngay fitnaal waaye jógal dugg ca dëkk ba te dinañu la wax li nga war a def jëf ya saar juróom ñeent aaya ñeent ba aaya juróom benn bi sool jóge gisatul woon dara nit ñi àndoon ak sool wammat ko ba dëkku damas sool gisul dara diirub ñetti fan ñetti fan yooyu lekkul dara naanul dara noonu yàlla wax ak ab taalibe yéesu bu tudd ananias te dëkk damas yàlla ne ananias mu dem ci sool yàlla wax ananias ne sool gis na ko ci am peeñu te ubbilaat na ko ay bëtam ananias bëgg ko woon def mu wax yàlla ne sool fitnaal na taalibe yi ci yerusalem te léegi mu ngi ñëw damas ngir jàpp ay taalibe waaye borom bi ne ko demal ndaxte maa ko tànn muy sama jëfandikaay ngir yóbbu sama tur fa ñi nekkul yawut ak fa kanam buur yi ak ban israel te dinaa ko won coono yu bare yu mu war a dëkku ngir sama tur jëf ya saar juróom-ñeent aaya fukk ak juróom ak aaya fukk juróom benn ananias def li ko yàlla wax mu dem ci sool mu teg ko ay loxoom mu wax sool ne borom bi yéesu moo ko yónni ngir mu gisloo waat ko mu wax ko ne dina fees ak xel mu sell mi ci saasa lu mel ni ay wasintóor génne ci bëti sool mu dellu di gis mu doon taalibe yéesu noonu ñu soob ko ci ndox léegi malaaj leen benn lan la sool doon defi bi mu dajee ak borom bi yéesu sol dafa doon dem damas ngir jàppi taalibe yeesu yi dafa leen bëggoon a indi yerusalem tëj leen kaso ñaar lan moo dal sool bi mu dajee ak borom bi yéesu dafa jekki ak leer takke asamaan dal ci kawam mu daanu ci suuf yeesu feeñu ko gannaaw loolu mënatul gis ñett lan la borom bi yéesu wax ananias ci mbirum sool dafa kone ne tànn na sool ngir mu seddeel ko ci yawut yi ci ñi dul yawut ak ci buur yi